def point de presse yàggul ne dafa am ay contrat yu ñu jël fii ci commune bi te contrat yooyu amul mooy lu ñuy wax contrat fictif loolu nag dañuy wax ne loolu ñu wax noonu dara amu ci ndax ñii nga xam ne ñoom lañ jël fii ñuy liggéey toll ci téeméeri nit ak fanweer ak lu topp ñu leen di fay weer wu ne nekk ay borom kër si ne naa ci kii sànq muy xale bu jigéen boo xam ne mu ngi dëkk fii Njaxiraat yaayam doon liggéey ci hôpital bi ñu jël ko la muy am akus néew muy dimbali yaayam ñu jël ko ci nettoyage commune bi sans vergogne bi ñëwee dañ ko dàq nañu kii kat contrat fictif la man dama loolu mais kan moo ko mën a gëm contrat yi ma yor nii soo des contrats en bonne et due forme fañ ko war a enregistré ñoo xam ne nii ay seede yi lañ waaye ñoom ñii ñëpp ñii ñëpp amul kenn kuñ ci fay dama ne ñoom ñëpp amul kenn kuñ ci fay maire bi musul woote réunion personnelle sax musu koo woote donc dama ne moom bu demee de ne salaire masse salariale bi nekkoon na fukki million ak ñaar ñoom ñeenti million lañ fay lañ mën a fay mais ngir yàlla ak yonent bi ñoom bu ñu xamul yoon wi wax naa ko sànq bu ñu xamul yoon wi dañ demandé audience à monsieur le ministre Omar Gueye ne ko monsieur ministre ñun kat dañoo bëgg nga wax ñu si secret ba nga xam ne moom nga daan jaar pour ñii nga mën leen a fay bu ko defee moom mu teg leen ci yoon je pense que c'est extrêmement important. li soxal oto yi li ma ci wax sànq leer na oto yi benn oto bi mi ngi CCBM commune bi ñaari oto lañu amoon. benn auto bi auto bu yàgg la mécanicien Amadou Ba moko yor le secrétaire municipal mën na len ko confirmer benen auto bi ma nga CCBM bagn ko jëlee bagn ko amé muy pan ministre des collectivités territoriales moñ ko joxone bagn ko jëlee muy pan ministre nañu auto bi limuy pan ci ci def xaalis bari na bayi len ngeen jël sen auto yi di ci dox course commune bi finalement non lañ mujj def auto baa nga CCBM donc loolu lépp ci procédé verbal passation bi procès verbal passation bi loolu yëpp mu ngi ci biir donc ñoom bu ñu amee lu ñu def nañ dem ci terrain bi liggéey bu ñu amee lu ñu war a wax nañ jël xale yi nga xam ne jël nañ leen ñu nekk ci ndaw dëkk bi war a liggéey bëgg liggéey ñu jël leen mais doo fekk ay nit bëgg recruter yeneen nit da fekk nit yoo xam ne nii. tey am nañu ay contrat en bonne et due forme ñu jël leen yow nga bëgg leen fi jële mais ban ban réew lañ nekk le Sénégal mënul fonctionner noonu nit ñi dañu war a xam ne les hommes les institutions demeurent mais les hommes passent boo fi ñëwee 2014 ñun bu ñu ñëwee Sangalkam amul kenn kuñ fi dàq tous les contrats ont été maintenus donc taw yii duñu nangu ñun duñu accepter que des gens racontent des histoires et des bobards pour dire qu'il y a des contrats fictifs di ko mbubboo et cetera et cetera wax naa ko sànq